xam nga le président Diomaye il est dans l'obligation de se débarrasser de Ousmane Sonko. su ko deful il va pas continuer son mandat. looy wax nii parce que dualité bi am ce n'est pas prévu ni par la culture politique sénégalaise ni par le dispositif constitutionnel ni par la pratique démocratique et étatique. loolu yaa koy wax. non waxuma mais Diomaye doit tout à Sonko. non xam nga ce que Diomaye fi mu nekk nii. ci ban ci ban situation la nekk. Mhm. soit il se démet. au profit de Sonko Sonko di def lu ko neex même buy violer la constitution parce que prérogative constitutionnelle yi président de la république lañ ko jagleel. Mhm. ou bien ou bien mu mat. siège cër bi ñu ko jox mu mat ko chaise bi ñu ko bi mu toog mu fees ko tepp pour def li nga xamante ne ni moom moo tax sénégal yi élire ko. dans les deux cas c'est un choix périlleux. dans les xam nga lu tax Ousmane Sonko est dans logique de conquête et d'exercice du pouvoir. am na benn palier yegg na ci benn escalier beneen escalier bi mooy neutraliser Bassirou Diomaye Faye pour que en deux mille moom rek moo fay nekk di buur di bummi mën a nekk le candidat de la majorité présidentielle au détriment du président de la République élu muy Bassirou Diomaye. mais sur la question LGBT le président Diomaye ban ban ci la ci war a am foofu laa bëgg a. waxee en fait mais mais loolu déjà. parce que lu Ousmane Sonko wax c'est le président de parti. mais le du aujourd'hui le président de la république Bassirou Diomaye Faye suba am na conseil des ministres xaw ma tey. Mhm. war na def une déclaration pour recadrer les choses. l'orientation maanaam la position officielle de l'État du Sénégal. Ah, la position officielle du des Sénégalais. Mhm. de l'écrasante majorité des Sénégalais ce n'est pas de tolérer. tu le demandes tu lui demandes de désavouer son premier ministre. De, sur waxuma la sax de la désavouer mais de la dégommer de hmm? la. avant avant le problème de de de de de de, de cette question de d'homosexualité mais il y a la diplomatie parallèle aujourd'hui kan mm-hmm. ngay gis mu organiser des conseils interministériels sur des questions d'intérêt national d'intérêt supérieur du peuple sénégalais l'agriculture yaa ngi dégg c'est Ousmane Sonko c'est vrai donc Diomaye ñun lu ñu gis muy def pour le moment mooy voyager à part voyager ban acte la fi dem en tant que président de la République donc li premier ministre di def loolu Diomaye moo ko war a def depuis son élection c'est Ousmane Sonko qui dirige ce pays te loolu sénégalais yi duñ ko nangu parce que faluñu Ousmane Sonko Bassirou Diomaye la nu fal et j'invite le président de la République solennellement mmh. d'assumer toutes ses responsabilités d'exercer la plénitude de ses prérogatives et de ses pouvoirs de président de la République et de chef de l'État du Sénégal est-ce que yaa ngi dégg même bu fekkente ne loolu ça va conduire à ce que mu séparer wu avec son premier ministre Ousmane Sonko l'intérêt supérieur du Sénégal le commande yaa ngi may dégg beneen bi si tegu man xaaroon naa sax Ousmane Sonko bu doon gor la deretu gor mooy daw ci moom de laa wax am na lu muy bañ mu démissionné